wali kulli waaxidatin ñeel na genn gune min ha ci ñoom waqtaani ñaari waxtu ixtiyaariyun kojug tànn mbaa nga ne kojug coobarewu ndax maanaam waxtu njëkk wi moo tudd muxtaar mën nga ne moom la ñu tànn jullee ca waaye mën nga ne ba tey koo xam ne ci sa coobare rek la doo sañ bàyyi bu waxtu woowu jàll te julli woo wa daroori jun ak ko jug lor kon julli gu ne dañ koy def ñaari xaaj ci yoonu Malik waxtu njëkk wa tudd muxtaar waxtu njëkk wa tudd daroori yi bu dee sa coobare doo sañ weesu muxtaar ma te julli woo ca boo ko defee ci sa coobare am bakkaar bu rëy rëy bu dee ngànt nag nga julli ca daroor yi moom doo am bàkkaar fal ixtiyaari yu ko jóg tànn ka wala nga ne waxtu way muxtaar li duhuri ñeel tisbaar min zawali shamsi mi ngi tàmbali rëccub jant li aaxiril xaamati ba ci mujjug taxawaay ba muxtaarum tisbaar mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee bu jant bi rëccee yaa ngi koy xàmmee ci bu xëyee suba takk ndeer yi dañuy féete ci soow waaye dañuy wàññiku nag ndànk ndànk ndànk su jant bi demee ba nekk digg asamaan nag wàññiku bi ker gi doon wàññiku day jeex tàkk du wàññikooti su jant bi bàyyi ko digg asamaan nag ñu jàpp ne jant bi rëcc na li ci ëpp nag faaw dana am askeppaar su fa nekk léeg-léeg nag mu jeex tàkk dara bañ faa nekk waaye li ci ëpp dana des askeppaar foofu jant bi rëcc nag fala muxtaarum tisbaar tàmbalee dana dema dem nag ba boo xoolee takkandeer bi mu gudde ne boroom takkandeer ba bu dee doomi aadama nag mën ngaa takk ne doomi aadama bu ne bu defee ñeenti xasabam moo tolloo kub takkandeeram ba tey bu nattee juróom-ñaari ndëggoom moo tolloo kub takkandeeram léegi nag boo nattee takkandeer ba mu gudde ne boroom te konte waale woo ci na keppaar sa toll woon ba tisbaar di jot xamal ne kon foofa la muxtaarum tisbaar yam takkusaan nag tàmbalee foofa waxu moom awalu waqtil xasri mooy njalbeenu waxtu takkusaan foofu nga xam ne fi la muxtaarum tisbaar yam nag fa la muxtaarum takkusaan moom tàmbalee wa aaxiru foofu mu jëm ila sfiraari shamsi jëm na ci jalug jant ba muxtaarum takkusaan mi ngi yem ci bu takkusaan suuf jotee ba nga xam ne boo dee xool naaj wi day xaw a xong xam naaj wi daal na mu weexe woon ci digg bëccëg weexeetul noona léegi jant bi tàmbalee xong suuf na naaj yi ba naaj yi xaw a puur nga xaw a xong su boobaa nag foofu la muxtaarum takkusaan yam dana wax daroor yee ci kanam ba tey mën nga ne rek bu takk ndeer ñaar caa boroom waaw ndax ba takk ndeer benn caa boroom foofu la muxtaarum tisbaar yemoon takkusaan tàmbalee foofa soo demee dem ba nga xam ne nag takk ndeer bi ñaar ca na boroom nag ba tey mën nga ne foofa la muxtaarum takkusaan yem walil maxrib bi ñeel na timis bi xuroo bi xursi samsi ci soxuk tatu jant ba timis moom muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu jant bi soyee ba wóor na rek sona waxoo moom nag mu dayyaxun lu ñu xatal la xayru moom tàddin du aji tàlli yu xaddaru def na ko nattale bi fi alihaa ci ak defam baada taxsiili shurutiha ci gannaaw amal sartam ya moxtaaru timis moom dañoo wax ne daa gàtt nga xam ne am nañu koy tolloo la ci gannaaw bu jant bi soyee boo toogee diir bu gàtt boo xam ne waaj nodd li xam julli fi ñett rek xañ na fa rek foofu la moxtaaram yam waaye nag xamlee ko ci kaw rek mi ngi tàmbalee fa jant bi soyee ba xong-xong yi nekkan ci soowu ba raaf ñu koy wax fàddu safaq loolu daal moo gën a ne xam mën nga ne rek muxtaaram mi ngi tàmbalee ci jant bi soyee ba safaq fàddu te safaq mooy xong-xong yi nga xam ne mooy des fa jant ba soye woon gannaaw bu soyee xong-xong yooyu nag bu demee ba raaf foofu la muxtaaru timis yam gee nag tàmbalee foofa walil ficha yi muxtaar la ñeel gee min ngay boobati shafaqi tàmbalee fàddu shafaq al ahmari ma eji xong ilaa sulusi léegi ba ca sulusi guddi ga ak awali gi aji jëkk gee muxtaaram mi ngi tàmbalee ci fa timis yemoon mooy bu xong xong yooyu raafee fa la gee moom di tàmbalee dana dema dem nag ba boo defoon guddi gi ñetti xaaj xaaj bi jëkk ba war a jeex mu ne boo ne jamono yi jant baa ngi so ci sept heures trente suba itam daanaka yaa ngi koy noddu xëy na six heures mooy vingt cinq ak yu demee noonu diggante boobu boo ko defee ñetti xaaj fu xaaj bu njëkk ba yem rek xamal ne foofu la muxtaarum gee yem wali subhi muxtaar la ñeel suba min tulooxil fajri tàmbalee fenkuk fajar as saarixi ga aji dëggu di isfaay ba ca set ga al an laa ga gën a kawe muxtaaru suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree ba leer gi tasaaroo foofu la tàmbalee dana ñëw ñëw nag ba nga xam ne bët ngi xaw a set ba bu nit dee ñëw boo xoolee kanamam da nga ko xàmmee ne kooku diw la nga xàmmee kooku comme doon foofu la muxtaar ma yem mu ñëw nag kon wax la daroor yi wax daroor yi daroor yi li suuf yi ñeel suba minal isfa yi mi ngi tàmbalee set ga ak an laa ga gën a kawe ilaa tulooxi samsi ba fenku jant xam nga da nga ne woon suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree ba leer gi tasaaroo nga ne woon muxtaaram mi ngi yem ci suba xawee set ba nga xam ne bu nit dee ñëw boo xoolee kanamam xàmmee ko la dalee foofu nag ci xaw googee set ba catu jant bi génn nag waaw kay diggante boobu mooy daroor yoom bu catu jant bi génnee rek xamal ni kon daroor yoom jeex na yaay waxtoom yépp jeex nañ wali zuhri daroor yu la ñeel tisbaar min awwali waqtin xasri tàmbalee ci njëlbeen waxtu takkusaan al muxtaar wari wuñ tànn ilaa xurubi xursi samsi ba ca soxog tetu jant ba kenn ku ci nekk rek fa muxtaaram yemoon fa la daroor yoom di tàmbalee tisbaar da nga ne woon mi ngi tàmbalee ci bi jant bi rëccee maanaam muxtaar ma dama dem nag ba nga xam ne takk leer bi tolloo naag borom boo fa nga waxal ne fa la muxtaaram yem te takkusaan nag tàmbalee fa foofee muxtaaram yemoon nag fa la daroor yoom tàmbalee ba jant bi so waaye nag bu ñu demee ba jant bi bëgg a so ba mu des loo xam ne genn jullee ci xaj dañ koy far moomale takkusaan te bàyyi tisbaar walil xasri daroor yu la ñeel takkusaan minal isfiraay tàmbalee ca gel ga ilaa waqtil xurubi ba ca waxtu soga da nga ne woon takkusaan muxtaaram mi ngi yem ci bu jant bi dee bëgg a soba ker gi jàppaloo naaj wi xaw a xong xam ni way xiitu nu weexi woon ci digg bëccëg foofu la muxtaaram yemoon da dali foofu nag léegi ba jant bi so mooy daroor yow walil maxribi daroor yu nag ñeel timis minal faraax mi ngi tàmbalee ci noppi ga min xaa ci moom timis ilaa tulooxil fajri ilaa tulooxil fajri ba ca fenku fajar timis na nga ne woon muxtaaram mi ngi tàmbalee ci jant bi soxee waaye nag muxtaaram daa gàtt boo toogee ci boo xam ne waajal ko nodd li xaam julli fa ñetti ràkk xaj na fa rek foofu la muxtaaram yem boo ko nattalee noonu nag la dali foofu ba fajar fenk mooy doon daroor yoom ba tey boo yemalee muxtaaram ci fàddu shafaq te loolu gën a leeral gën a yomb xam ngay wax ne kon bi shafaq fàddoo la fa tàmbalee fajar fenk mi ngi bokk ci daroor yu timis waaye nag jàppal ne sa diggante fenku fajar bu desee loo xam ne genn jullee ci xaj dañ koy moomale géem yi mujj te bàyyi timis walin xichaa yi daroor yu la ñeel gee min aaxiri sulu si layli tàmbalee ci mujjug sulu su guddi ga al awali bi aji jëkk ilaa tulooxil fajri ba fenkuk fajar da nga ne woon gee muxtaaram mi ngi yem ci boo defee guddi gi ñetti xaaj benn xaaj bi jëkk ba fa mu yem rek fa nga waxal ne fa la muxtaaram yem la fa dale nag ba fajar fenk moom mooy daroor yu gee tam biixun li ak yeete la ma axara ku yeexe asalaatu julli ga ilal waqti ba ci waxtu wa ak daroor yu way daroor yu min xayri xuusurin ci lul ngànt asima kon bakkaaru na nee na julli nag boo ko génnee muxtaar ma ci sa coobare nga xam ne amu woon ngànt julli woo julli woon nag ba muxtaar ma jeex daroor yu ñëw kon amee nga bàkkaar bu rëy rëy wal xudru ngànt la nag alxaydu mooy mbërëk wal nifaasu ak wasin wal kufru aku weddi wal siba aku ndaw wal junoonu aku ndof muy say wal ixmaawu ak xam wan nawum ak nelaw wan nisiyaan ak fàtte nee ngant yi nga xam ne ku mu dal boo bàyyee muxtaar mu jàll julli woo it ba daroor yu ñëw nga door a julli ba daroor yu ñëw nga door a julli doo am bàkkaar mooy yi mu wàññi jigéen ju amé woon deret moo xam bëral la moo xam wasin la ca muxtaar ba ba darar yi ñëwee nag mu daal di laab daal di waaj julli kooku du am bàkkaar ba tey ku nekk ñu yéefar nga xam ne daa duggutoon ci lislaam ci jamono yi muxtaar ba mu tuub nag ci daroor yi wa daal ciy julli ba tey kooku du am bàkkaar ak ku nekkan gone nga xam ne julli waru ko woon ca ba mu tolloo ca muxtaar ba dikkee ba ca daroor yi wa nag mandarga yi tax a kàllafe feeñu ko mu xam ne kàllaf la daal di julli ci daroor yi ba tey kooku du am bàkkaar koo xam da doon say baa mu doon xam maanaam daal ku dofoon baa mu doon xam daal ca muxtaar ma ba daroor yu dikk mu daal di ximmi nag ca ndox ga mbaa ci xam nga daal di waaj julli ca daroor yi ba tey kooku du am bàkkaar ak nelaw ak fàtte nelaw ak fàtte yàllaa ko bindi nit kon bu nelawee ca muxtaaram baa mu fàttee julli ca muxtaar ma ba daroor yu ñëw mu daal di julli ca daroor yi ba tey du am bàkkaar faslun yajibu dana war xalal mukallaf ci mukallaf xadaa ma fay la nga xam ne faataxoo raw na ko min salawaat ci julli ya al mafrodati duñ farataal murattabatan mbir bu ñu luñu toftale fi ay wax ci wu ci waxtu kaana la nekk nee na mukallaf kat su fekkee daa amee bari julli war naa taxaw temb ci fay leen nga xam ne bu ko see am lu mu lekk am lu mu sol rek daa war a taxaw temm ci yitteem yépp jëm ci fay bor julli yam amee fay bor nag moom sàkk nañ ko wenn waxtu waxtu ñu araamaloon naa fi ne sax dutee mënees na caa fay bor fay bor moom waxtu ne rek mënees na ko caa wa yajibu dana war tartibul xaatiratayni toftale yaari julli aji teew al mushtarikatayni aji bokkaale fil waxti ci waxtu yaari julli bokkaale waxtu mooy tisbaar ak takkusaan ci wet ak timis ak gee ci wet bokkaale gi mooy nee nañu bu fekkee ne nekkoo di tukki kon yaay julli yi bokkaale ne diir boo mën a jullee ñeenti rakka bu fekkee da ngaa nekk tukki kon ñoom ñaari bokkaale nañ diir boo mën a jullee ñaari rakka dañoo wuute ci nag fan lañ ko bokkaalee ndax dañ koo bokkee ca bu jub julli bu njëkk gi am nañ koo bokkaale ca njëlbeenu gu ñaareel nga ci misaal boo nee tisbaar takkusaan jël bañ bokkaale ña ngi ko bokkaale ci mujjug tisbaar kon boo xaaroon ba mujjug tisbaar nga gaaw julli takkusaan takkusaan war a baax ndax da ngaa fekk waxtu wañ bokk nga jullee ko ca boo nee ña ngi ko bokkee ci njëlbeenu takkusaan nag ba tey boo yeexee woon tisbaar ba moxtaaru bépp jeex nga julli ko ci njëlbeenu takkusaan doo war a am bàkkaar ndax dangaa fekk waxtu wañ bokk nga jullee ko ca loolu moo tax nag boobu wuute moo nekk foofu yaar julli bokkaale waxtu noonu nag la ne moom li fekk xañ nañ ci waxtu wa te aaju wa nga tegale leen nga jiitu jiitu nga ca topp topp ca waaye boo ko tayee jëkk julli nga mujj rek du baax nit fi mu nekk nii takkusaan jot na koo xam ne julli woon ci subaar boo ko tayee njëkk julli takkusaan takkusaan gi du baax faaw boo jullee tisbaar ba àggal war a baamuwaat takkusaan bi timis ak gee it noonu la bu gee jotee te julli woo timis te fàtte woo defoo dara nga war a njëkk a julli timis door cee teg gee boo njëkkee julli gee te tey ko gee ga du baax faaw boo jullee timis war a baamuwaat gee nga xam ne moom tegale ga daa war ba noppi di sart boole ci mooy la koy tax a baax nga xam ne boo ko deful du baax moo tax mu ne fa in xaala fa ndem jiwa naag loolu aha dam baamu ak saaniya te julli ñaareel nga abadan faaw boo leen tëgaliwul rek ku ñaareel ga nga njëkk julli te waroo koon njëkk julli faaw boo jullee ku njëkk itam war koo baamuwaat ni ma ko waxee léegi waye ji bu dana war taqdimul fawaid di jiital way faadiya xalal xaadirati ci aji teew ja wayen xaraj ak doonte nar naa génn mooy nar naa jeex waqtul xaadirati waxtu julli nga teew maalam tasit li fi ëppuñu xalaa xam si salawaat ci juróomi julli su amee julli yu la raw yoo xam ne bëriwul te ñeent moom ñëpp maase na ci ne bëriwul ak la tàmbalee ñeent jëm suuf kon bu la yeente julli rawee baa loo xam ne matu ko am julli koo xam daa jot nga nekk ci waxtoom day war nga jiital yooyee nga xam ñoo la raw paas ci gi nga xam ne yaa ngi ci waxtoom doonte xam nga ne sax boo fi dee julli yooyee far ki raw la it du tee rek moom dañoo war a tegaloo nga njëkkee ba ak si gi
waaye nag moom warugar la waaye du sart bu fekkee defoo ko du tee gi nga jëkk a julli ci waxtoom door a fa yooyee ci gannaaw du tee yooyee wér du tee moom itam mu wér nga xam ne tegaleeg warugar la waaye du sart warugar la mooy soo ko bàyyi am bàkkaar waaye boo ko def itam du tee bu baax mais nag bu fekkee tisbaar daa jot te fekk julli woon suba da ngaa war a jëkk a julli suba door a ñëw ci tisbaar boo ko tayee nag léegi jëkk a julli tisbaar door a julli suba itam du tee tisbaar ji baax nga am bàkkaar nag ci ñàkk daa tegale fa in saadat ndem ëpp na nag xaleha juróomi julli ya xalaa ahadil qawlayni ci benn ci yaari wax ya al mashhurayni ya duñu siiwal aw xal arbaxi mbaa mu ëpp yent xal mashhur ci wax ba ñu siiwal al axir ba ca des qoddimat kon jiitaleef al xaadiratu aji teew ja ida baax ndem xat na waxtuha waxtoom wa bu fekkee julli la raw nag daa bari te juróom benn moom ñëpp maase na ci ak bareem juróom daal ci lañu wute ba xam da nga koy wàññiwaale ci néew ga am nga koy wàññiwaale ci bari gi yow nag say boo boole ko ci bari gi rek mu gën laa noppal kon jàppal ne daal la la war ci ay julli la la raw ci ay julli bu dee juróom jëm juróom benn jëm ci kaw daal am julli gu teew da ngay julli gi nga xam ne moo teew ba noppi nag door a fa yooyee nga xam ne ñoo la raw li wax nag moom mooy bu waxtu waxatee mel ne kon fekkee waxtu waxatut dañ lay tànn loo bu la neexee julli julli gi teew door a fay yooye bu la neexee fay yooye ba noppi door a jul julli gi teew ndek waxtu yaatu na waaye wax ji gën a wóor daal moom mooy su julli yi xasee bari dañoo bëgg daal nga julli gi teew ba noppi door a julli nag yooye nga xam ne ñoo la rawoon waaye nag nga jàpp ne su waxtu waxatee rek nga xam ne boo fi nekkee di fay yooyee googee nga toll itam raw la ne ñoom day war kon te doo ko sañ a bañ nga jiital gii nga xam ne yaa ngi nekk ci waxtoom def ko ba noppi door a dem nag ci yu bari yooyee wa man takkara ku fàttaliku faa itatan julli gi aji faat fii waqti yetin ci julli gi ko ji waxtu ye jibu ko dafa war tartibu xaa ak toftalee ma xaa ànd ak moom ñu seet fa in kaana dem nekk na vazan di kenn xataxa mu dagg maalam yaqid di fekk fasut rakatan benn rakka bi waddaxi yeddayi ci teg yaari loxoom ala rukk ba tey ñaari bëti wooma ñu ne boo dee julli ak julli fàttaliku ne am na goo ko war a susaleel te julli woo ko mel ne nga taxawal julli tisbaar fàttaliku ne julli woon suba loolu nag aajo woon a teqale ndax mën naa dal kenn képp kuy julli mën naa dal kay jiite mën naa dal itam maamoom daa jëkke nag kenn kuy julli bu ko loolu daloon kon bu fekkee fasagul benn rakka day daal dellu ca julli gu jëkk ga julli ko door a ñëwaat ci gii lim tuddee fasub rakka fii nag ne li fekk jàppul ci ay woomam rek jàppal li gën a wóor mooy li fekk rakka bay mat sëkk ba mu sujjóot ñaari sujjóot ñi rek foofu lañ koy takk waaye kenn du ko takk ci teg rek ñaari loxoom ci ay bëti woomam moo tax boo wootee xool saraa bi mën naa la المشهور أن الركعة هنا كالركعة في الجمعة والجماعة والرهاف وأصحاب الأحذار فلا بد أن تكون كاملة بسجدتيها بسجدتيها فلا تتحقق بمجرد وضع اليدين على الركبتين كما هو مفاد المصنف kon daal ci gàttal boo doon jul yow dong nit ngay taxawal ci subaar fàttaliku ne julli woo woon suba te jotagu am rakk mat ba sujjóot ñaari sujjóot ña kon ngay dagg tisbaar gi daal dellu julli ci suba boo noppee ci suba door ñëwaat ci tisbaar bu fekkee am nga benn rakk bu mat nag nga xam ne rakk bu mat na ba nga sujjóot ñaari sujjóotam kon dagg ko noonu day ñaaw nga cey dolli beneen te yéene mu di naafila ko defee mu daal doon ñaari rakk nga taayu sëlmal jàppee koog naafila door a dellu nag julli suba boo noppee suba door a ñëwaat ci tisbaar fa in xaq daxaa ndem fas na ab rakka damma mu tàpp maa mu boole ilayha jëm ci moom uxra beneen rakka waxarajati mu génn xan shafin bàyyi ko ci tóllan tóllan mooy ñaar nga def ko naafile daal di taayu sëlmal daal di jiital na nga war a jiitu war caa teg googee nga tàmbale woon te warta jiitu loolu nag mooy bu fekkee da ngay kenn wa in kaana ndem nekk na imaaman di ilimaan xataxa mu dagg wala yastaxlifu te du wutal wa yasri tey day royaat wa yasri tey itam day royaat dalika loolee li salaatul ma'mumina jëm ci julik maamum ya ba tey loolu bu daloon ilimaan mel ne ilimaan di jiite rek tisbaar fàttaliku ne moom kat julliwutoon suba atte bi benn la ndegam amagul rakka bu mat sëkk ba sujjóot ñaari sujjóot ña day dagg daal di dem julli ji suba door cee teg tisbaar mii su amee rakka bu mat nag ba nga xam ne sujjóotoon na ñaari sujjóoti rakka ba kon na ko tolloon ci teg ca benn yéene bu dig naafi la mu daal di bàyyi julli ga te bañ a wuutal moom nag du mën a wuutal kenn te it loolee ko dal day royaat ba àgg ca maamum ya mooy maamum ya itam seen julli yooyee dañ koy tàmbaliwaat kenn ci ñoom nag mën naa jiite xam day tàmbali tàmbali gu ma sëkk mel ne ilimaan ju yees du joteeg dara ilimaan ju njëkk ja ba tey kenn ko ne mën naa julli itam sa julli bopp rek goo xam na nga koy tàmbaliwaat waaye daal ndegam ilimaan lee dal na ko ba muy dagg moom loola day royaat ba ci seeni julli ñoom ñu ànd nag moom li mu wax nag mooy nga nekk di julli ak julli fàttaliku goo ko war a tegaleel te julliwoo ko mu des nag bu fekkoon ne dangaa julli jii ba sëlmal door a fàttaliku ne ah moom kat nga ko jiitu julliwoo ko woon kon fàtte gi dana tax moom mi nga julli ba noppi baax na waaye nag sopp nañ boo jullee googee nga xam ne moo ko jiit ba àggat nga baamuwaat gii li feeg waxtu wa jeexut de bu waxtu wa xasee jeex moom du aajowoo baamooti loolu nag mu dal kenn ak mu dal ilimaan ñooye moo képp ci sopp googu baamu ga te itam bu dalee ilimaan kese te dalul maamum ya it du tee ñu sopp ca maamum ya na ilimaan di baamoo ñoom itam ñu baamoo noona sopp mboolem ñi nga xam ne ñoom la doon jiite ñoom it ne ilimaan di baamoo ci waxtu wa ñoom it ñu baamoo noonu ci waxtu wa mu des nag loolu bu dalee maamoom wa in kaana dem nekk na ma mooman di maamoom tamaa daamu wéy maxa imaam yi ànd ak ilimaanam ba fa isa faraxa ndem noppi na sallaamu julli maa la nga xam ne nasiya fàtte woon na ko su ma waxee du topp mu baamu maa la nga xam ne sàllaa julli woon na ko maxal imaam yi ànd ak ilimaan ba fil waqti ca waxtu wa ne bu amee ku lay jiite ci biir julli gi nga fàttali ko ne ah yow kat julli gii julli woo nga ko jiitu ni ki mu lay jiite tisbaar nga fàttali ko ne julli woo suba kon ndegam maamum nga rek da ngay wéy te sa julli ga dana baax daañu sopp rek su ilimaan sëlmalee ba nga julli suba ba noppi te waxtu wa jeexut nga baamuwaat tisbaar mii nga xam ne moom nga ànd ilimaan te fàttaliku ne subaa ko waroon na jiitu te julliwoo ko bu waxtu wa xasee jàll nag jeex na baamu nga deesu ko sàkkooti fa isa kaanat ndem nekk na jumu xatan di julli juma sallaha mu julli ko duhran muy tisbaar bu fekkee nag danga ànd ilimaan ngeen di julli julli jumaa gi nga far fàttaliku nag suba kon julli jum la fekkee ak ilimaan julli jumaa la tan wax ne sa julli jumaa gi dana baax waaye dañ ne woon dañoo bëgg boo jullee suba ba noppi nga baamuwaat julli googe nga ànd na ilimaan mu ne nag bu fekkee julli jumaa la moom doo baamuwaat julli jumaa da ngay baamu tisbaar waaw kon boo jullee suba ba noppi ngay baamuwaat tisbaar te bañ a baamuwaat julli ajjuma ga nga xam ne moom nga ànd nag ilimaan tam biixun li ak yeete la say ati xalsat naa dikk ne ànd xaq dara xaj naka fas ràkk ba xinda binul xaasim fa ibnul xaasim bi rafi rasi nekk na ci yëkkati bopp ba mi na rukkoo yi bàyyi ko ci rukkoo illaa fii masailun dara ci ay masala marda ko ret ñu duñ tudd ci li mu taw walaati ci téere ñu guddal yaari kilifa yii te mooy abdurahman ibnul qasim ak ku ñu wax ashab dañoo wuute ci lan mooy fasuk rakka fasu rakka mooy li nga xam ne bu xasee am la nga fàtte woon ci rakka ba ko jiitu ci xeeti farata yi doo mën a dellu di ko dabooti li fekk fasu rakka amagul nag loo fàtte woon ci ràkk ba ko jiitu da nga mën a dellu defi ko dañoo wuute nag ci lan mooy fasub ràkka bu dee ci ashab moom day wax ne boo xasee sëgg ba teg see ñaari loxo ci say bëtiwoom rek ràkk ba fasu na ibnu xaasim ne déedéet boo sëggee ca rukkoo ba ba siggi ba noppi la ràkk bay door a fasu li ñuy wuute wuute nag am na ay benn benn masala yoo xam ne juboo nañ ci ne bu kooku xasee teg ñaari loxoom ci ay bëti woomam rek rakka ba fasu na masal yooyu nag wax nañ ko ci téere yu guddi yi mel ne muxtasar xalil ba tey it boroom saraa bi far na ko gàttal fii moom lay wax naa fa yattafiqaani fiiha fa jublu fiiha ci masala yooye xala an xaqda rakxati yaxsulu bi mujarradi l inxinaai wa wadaxi lyadayni xala rukbatayni wa tilka almasailu hiya tarku sirrin aw jahrin bi mawdihihima wa taqdimu suurati xala ummi alquran wa takbiru ciidin wa sajdatu tilaawatin wa dikru bacdi salaatin wa iqaamatu magribin alayhi wa huwa biha faslun li ab dog la yaxrumu dana araam alayhi ci mukallaf mi salaatu nafli jullig naafila inda turuuxi samsi fa fenku jant wa inda xurubiha ak fa soxom nga daa waxtu yoo xam ne dañ caa araamal naafila bokk na ca bu jant bi tàmbalee fenk te lépp fenk gut bu lépp fenkee nag moom sib ga dil siwaat ba kay muy yëkkati bu lu toll ni ñetti meetar ci sa xoolu bët ba tey bu jant bi tàmbalee so te lépp soxagut ba tey naafila day araam bu soxee itam nag ba lépp dugg da ngay nekk ci yoonu Maalik ba tey bala ngaa mën a naafila sëlmal timis njëkk waaye diggante ba du am naafila bu dee ci yoonu Maalik jullit néew nag julleeg néew nag bokkut ak naafila waaye ñoo bokk àtte ci googu wàll waxtu wu ñu sibee naafila rek sib nañ ci julleeg néew waxtu wu ñu araamale naafila rek araamal nañ ci julleeg néew waxinda xutbatu jumuhati ak fa xutbu ajuma ba maanaam bu ilimaan toogee ci minbar beeg noonu te tàmbaleegul xutba bu dee ci yoonu maal dañu sib nga tàmbali naafila bu ilimaan tàmbalee xutba nag moom day araam ndax dañuy jàpp ne xutba bi moom farata la te naafila gi naafila dong la kon na war laa soxla woo naafila di bàyyi farata ji am na nañu ko jàppewul noonu sukkandikoo ci addis waaye yoonu maal daal moom mooy noonu waxinda diixil waxti ak fa xatu waxtu wa aw bax da xorooji yi wala gannaaw génn waxtu wa li ma ñeel ga nga xam ne xale yi war na ko fardun farata su fekkee xas nga ami barub julli moom doo sañ a naafila ndax loo nara naafila faye ko bor ba tey bu fekkee waxtu wa daa xatte yow defagoo ko doo sañ a naafila bu waxtu wa xatee ba nga xam ne boo fi jëkkee naafila doo ci amub ràkk sax kon day araam nga naafila dangaa war a taxaw temm ci amub ràkk ca farata ja wa yukrahu def na ko si baxda tulooxil fajri ci gannaaw fenku fajar ila an tartafina ba yëkkatiku asamsu jant bi xiidarum bi lu toll ne ab xeec wa baxda fartil xasri ak gannaaw faratey tekkusaan ila an tusalla ba dee fi julli almaxribu timis maanaam mën ngaa takk ne saa yu fajar fenkee rek moo xam nodd nañ moo xam nodduñu waaye fajar fenk na rek dañu sib mboolem julli naafili ba mu des ñaar raakay fajar ñaar raakay fajar moom loolu mooy waxtoom waaye lu bokkut ak moom ci xeet naafile yi doo ko sañate si googe nag mooy yooyu ba jant bi tàmbalee fenk bu tàmbalee fenk te lépp fenkagul nag day araam moom ni ñu ko waxee woon léegi bu lépp fenkee nag bu lépp génn nag sib ko del si ba ba mu yëkkatiku ñetti meetar ci sa xoolu bët mën ngaa jàpp nag ne waxtu way nodde woon salaatu moom boo ci tegee waxtoo genn wàll rek moom dana fekk jant bi fenk ba yëkkatiku ñetti meetar mooy dana dagan nga naafi la ba tey jàppal ne gannaaw boo sërmalee takkusaan dañuy sib naafila gannaaw takkusaan daal sib nañu naafila ba jant bi tàmbalee so bu jant bi tàmbalee so nag te lépp soxagut mooy lépp duggagut naafila day araam day weesu sib bu lépp soxee nag bu ne ci yoonu maali ñu sibati naafila ba kere nga sëlmal timis julleeg néew moom du naafila fardu kifaaya la waaye nag moog naafila ñoo bokk waxtuy sib ak waxtuy araamal ba tey sujootu alquran moog naafila ñoo bokk waxtu wuñ leen sib ak waxtu wuñ leen araamal waaye nag sujootu alquran mii ak julleeg néew mii moom boo sëlmalee takkusaan li feeg muxtaarum takkusaan di jeex mën nga leen a def ba tey bu fajar fenkee li feeg muxtaaru subay jeex rek mën nga leen a def nga xam ne kon ñoom ñaar maye nañ ci loolu waxinda adaanil jumuhati